gañe moom day non non Amadou Ba je n'ai rien contre lui mais Amadou Ba xam nga Amadou Ba moom mënut a gagné euh, ay élections non Amadou Ba ne sera il a un parcours Amadou Ba Amadou Ba il il a le soutien du président sortant oui, Amadou mais... Ba il a un appareil électoral bu dëgër oui mais sauf que le président sortant nous avons allé nous sommes allés à l'élection législative en ils sont à moins de pour cent en réalité les chiffres mooy ñoom ils sont à moins de pour cent tey Amadou Ba segam Macky Sall ak coalition Benno ñoo demoon ak am moins de 40 pour cent tey on a perdu Mame Boye Diao on a perdu Aly Ngouille Ndiaye on a perdu Boun Abdallah Dionne on a perdu ñi nekk ci biir ba pare ni ñoom duñu duñu voilà nekk non dem nañ mhm. affiché wu nañ mais am na ñu nekk ci biir ñu ne ñoom fóotuñu seeni maillot pour Amadou Ba comment ça léegi nag ñooñu non non taxawal taxawal taxawal daa am ñu des biir APR ñoo xam ne soutenir ñu Amadou Ba il ne mouille pas le maillot pour lui. mais c'est sûr ñun ay acteurs politiques lañ xam nañ ni. politique et vous parlez à ces mais boo xoolee tey par exemple nu kii ñun ñu nekkoon assemblée nationale naka ngay ñëwee assemblée nationale vote budget mais tu na ñun ñun ñu nekk coalition wàllu fu ñu jógee taxaw wax fu ñu daanalee suñu kàddu mooy suñu candidat Karim Wade mi ngi ñëw mais bennoo xool leen. par benn par ñaar nga doon gis ñu fay cité turu Amadou Ba loolu am na lu muy wund wax. c'était c'était pas le choix initial, c'est un mauvais loolu ma moi je pense que xam nga nag man bennoo bokkuma fa xamuma ni muy demee. mais mais je pense que mais je pense que je pense que Amadou Ba. n'est pas le bon choix. ça c'est c'est à personnel je pense que. Amadou Ba sa gis-gis la en en tant qu'homme politique. voilà parce tamit Amadou Ba. ban ban élection la fi gagné jiite na fi liste Dakar. ah mais 2017 il a gagné haut la main gagné dem na fi mairie Dakar. il a été battu. c'était pas lu nekk def na ko non Parcelles Assainies Parcelles Assainies Amadou Ba a été là-bas. il a été battu par Moussa Moussa Sy. loolu c'est c'est clair Amadou Ba man gisuma parcours politique tey bu ko war a permettre mu nekk président de la République et je suis sûr et certain que euh, les Sénégalais ne sont pas prêts à voter Amadou Ba.